léegi balaa ñoo ñëw ci courtier léegi balaa ñoo ñëw ci courtier léegi dañuy ñëw ci Eumeu Sène Balla Gaye 2 waaw troisième revanche ndax combat bi mu taxawee sax dafa jaaxal ñëpp ñii ne dinañ ko bëre ñoom ñu ne duñ ko bëre ba yàlla mm-hmm. dogal ñu bëre ko ndax lu yàlla jeexalu du jeex mm-hmm. dama ne combat boobu naka ngeen ci ñëwee Eumeu seen Balla Gaye 2 ñu war a bëri xam nga combat boobu su ma juumul est-ce que du nekk vingt 2024 lay doon la jëm waaw fa jëm de. ama day toog rek di xaar. non day Eumeu ñun ñu ngi koy ñun wax nañ wax waxtaan nañ si waxtaan nañ si waa Pikine nit ñaa ngi ma ciy woo. combat boobu suñu suñu père bu nekkee mun na ko jox benn avance guy gi mu ngi fi. ah ngeen ba mu. waaw waaw man de wax dëgg yàlla bu ko defee dina seddal sama xol. mais Sa mu ngi mu ngi bëgg. non non non non foofu ñun boolewuñ ko suñu bilan non non. Ah. waaw ah, du du du sama wax yóbbante waa Pikine la. maanaam Sa Thiès bokkul seen. tegee bokkoon na ci mais tegee leen tegee nañ ko nale. mais lan moo tax. non dara loolu suñu gi mu ngi fi wala tafaatin wala nga xaar Balla Gaye kese. maanaam mu dama ne la même bu bëriwul ak Eumeu Sène yàlla mu ngi koy teral mu ngi koy dimbali. wërsëgam Eumeu Sène yoru ko wax lu leen waaw lu ma lu ñu déranger metti sax. ci xaw ma du si du egg foofu pare seetaan nañ ko metti nañu mënuñu si dara. mais tamit ñun ñun ñoom ñun ñun ñun ñoo dëkk fii. mais est-ce que nekkul bëgg gi bëgg. non non non non non garaawul parce que man man xam man lii avant mu doon am man xamoon naa ne Eumeu Sène ku bëggoon a bëre ak Sa Thiès la. Ah, ak na pour may ko billaay ak di toog di wax ci moom lu rafet man mosuma taxaw ñu yëkkati micro sax. gis nga sama xam nga dafa bëri dañuy waxtaan nii rek dañuy waxtaan. man amul benn xeer bu ma koy sànni wala parce que sekkuñu ko xamante wuñu miinante wuñu du dëgg bu ma ko fekkee stade du ma ko jox loxo xaw ma ko koy ni koy koy xam ngay jox loxo du dëgg billaahi wallaahi wa taalaa xaw ma ko parce que foofu Badou moo fay sama xarit Badou Alé Ndiaye ak Aziz. mais boo gisoon sax Thiès doo ko xam. du ma ko du ma ko xàmmee. ci télé bi laa ko. billaahi wallaahi xaw ma ko. sama bakkanu doom xaw ma ko. fréquenté wu ma ko xaw ma ko amul sama numéro aw ma numéro. mais ba muy bëreeg boo foo nekkoon Burkina. maa ngi te xàmmee wu Sathies. xàmmee wu ma ko ci télé rek laa ko xàmmee xàmmee ko. am nga ci plein droit nga ne du ngeen jël Sathies. Hmm. non waxuma duñ ko jël waxuma duñ jël Sathies de ma ne la sama téléphone bii. Hmm. ay soppe Eumeu Sène ak ay magam ak ay nitu Pikine ñi nga xamante ne tey ñoo may naan waxal lii ma wax lii ku ci nekk ma woo am na ñoo xam ne mënuñ jot Eumeu Sène dañoo seetaan communication benn communication xam nga bu mbër bu bëgg a bëri Eumeu Sène génnee wax waaw dégg nga léegi nag na dem jële ju guy gi loolu la. moom am waaw na dem jële guy gi. ko ko waaw su waaw gasson gasson lépp mënu dépendre ci gasson rek. Eumeu Sène tamit dafa am estaf tey mun naa ñëw mun naa ñëw sax ni ko guy gi estafam ne noo bëgguñu guy gi tafaatin la ñu bëgg wala li bokkuma ci estafam dama dafa nekk suma rakk. kon na xaar lépp mun na nekk waaw. mais sauf Sa Sa Thiès man bëgguma. dama la dëgër. bëgg naa. sauf waaw bëgg naa. Mhm, bëgg naa. <laughs> waaw bëgg naa. ba a ngi biir géejawaay de. non ñu ngi biir géejawaay. la sax. non combat boobu bàyyi bàyyi mu sedd du ma si wax. <laughs> non daa ñëwagul. Ah. amagul dat amagul dara non wa maa ngi cee wax yow bii kay ñëw na yii wax naa ci Ama Balde mu ngi ñëw am na date 5 février la ah. wax naa si booy Niang dégg ah. am na date premier janvier la yaa ma ci Eumeu seen te Eumeu seen ak euh, Balla taxaw na. mais waaw waaw bàyyi naa sedd ma ma ma diigal ko. waaw diigal naa ko. Hmm. léegi nag ñu ñëw hmm. ci nga ne maara yi dafa am ay courtier. waaw comprendre ma loolu. non daa am courtier. courtier maanaam ça veut dire. parce que tey. courtier mooy lan. non déglu ma rek. gis nga pël boobu muy sëriñu bombardier boobu. man leer na ma ne parce que mu ngi wax ci biir ay waxam ni bombardier sax yorul numéro. waaw seetaan ay sor man da man chaque jour ci li ngay wax laay sukkandiku. moom mu ne yorul numéro bombardier. voilà si biir sortie bi. benn waay intermédiaire la moo ko booleeg bombardier moo daan ñëw kooku moo ko doon jox xaalis ak yooyu noonu comprendre nga. inter waaw mais tey munoo ñëw indi premier combat Eumeu Sène ak bombardier Eumeu Sène bombardier indaale kuronam Eumeu Sène daan ko nga ngemb ko indi ko Eumeu Sène daan ko combat bii passé indi na bombardier. mooy Eumeu Sène. bombardier bii. non moom ñëwul ñëw. waaye ñëw na. Pape nee na ñëwul. waaye ñëw naa. yaa ko waaye bu doo ma déglu ko ina déggoo déggoo ma de du combat bi kese yàgg na indi ay mbër ñu koy daan. ah bon waaw. xoolal man buuse laa moom nee na jula la nag la xam ku xamu ku xamul sàmm xamoo jàpp xamoo jur doo mun a fas man mu new cent 1986 ba tey ci ay jur laa nekk hmm. def naa seeraas vingt ans yar naa xar bu ne nag bu nekk jaay naa ko mënuma takk kenn mënuma fas loolu ay kàcc la ah waaw fen ay fen ay loolu loolu ku nekkul buuse wala ku nekkul juróom rek doo mun a takk loolu ay fen la munul dara dama ne la xoolal munul dara ba pare bombardier da doon préparé ak ay mbokkam mhm. di dem yàlla di ko may ndam wala yàlla xañ ko mais yow munoo ne yow tey waaw non waaye ban balle non eggaguñu foofu maa ngi ñëw foofu bombardier laay wax ba pare soo seetaanee sorti bi mu wax nee na li yàqal bombardier biir këram la jóge mbuur waaw sëriñ bi moo ne li yàqal bombardier mbuur la jóge bu mujj bi yaa ngi accuser ay nit mu ngi accuser ay nit kon moom moom mooy yor moom mooy yóbbu ruu yi wala mooy maye ndam wala moom mooy yàlla suñu borom. lu dëgg. bu mu indee Balla Gaye ñi ma gisoon Balla Gaye di àndal mooy boroom kagul bi te saa yi ñëwee indi mbër day won day day def ay preuve te doo ko gis ci site internet ñu affiché sa numéro téléphone lu ci boole wax doo dégg sax baatam parce que man ak moom laale nañu fii ci stade bi ma xam lu mu mën ma xam lu mu mënul mm. waaw waaw kay kooku xaw ma turam mais borom kagul bi laay wax mais non waaw parce que ay preuve am la wane su wanewul ay preuve ñii duñ ko ñëw di ko indi muy indi ay mbër yu mag parce que soo xoolee événement yu mag yëpp da daan ñëw di def preuve te doo daan mbërëm loolu dañ ko koy nangul Serigne Messi la waaw Saa Touba waaw daaw dafa def preuve vingt-quatre waaw ren indi na ay mbërëm daan ñu daan ay mbërëm mais jël ay numéro nekkul ci site internet. kee sëriñ bi numéro waaye mu ngi ci site internet danay xam nga lan la bëgg. Kaaw Maani waxuñu côté bii de. Kaaw Maani lay ah, yaa ngi juum de numéro bi duggul de. waaye dama ne la juumuma xam nga do waaye yow c'est que problème wu ni waaye man damaa yàgg ci làmb. xanaa du ki ceer jël sëriñ bi ceer jël. waaye xaw ma ku ko jël. ceer ak Lamine bàyyi di wax ba xoolal bàyyi di la di wax man turu sëriñ boobu ngeen koy wax man laa nanguwul. Ah, jaaykat jaaykat yàpp boobu ngay wax julo bi waaw yow sëriñ lan sëriñ bi ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmed Tidiane Thierno Thierno Mountaga ñoom ñooy sëriñ. léegi saa ma ne la sa xarit la sama dama ne la daaw 24 litres la indi kenn laalu ci suuf. ren. mu am ñetti victoire ñaari defet waaw si mbër yi ma gis ñu mu indi. ñeemb leen. waaw waaye ay numéro am doo ko fa gis de. doo gis numéro téléphone du dóor kenn du dóor dañ koo cuubal. cuubal woo ko de dama ne la. cuubal mu tàkk déggoon wax nga benn yoon la génn. bii mooy ñaata sixième sortie bi ma ko defal. 17 laay noppi fukki sit ak juróom-ñaar laay doog noppi dootul dóorati benn kawmaan. kawmaan yi laay dimbali de. moom kan saa tuuba. déedéet. kan julo te mu te mu bombardier. kooku mooy indi Balla Gaye contre Boy Niang non waaye yow boobu yàlla na ko indi. mooy indi mooy indi kii weer Ama Baldé naan Ama kii ñëw fii taxaw di weer Ama Baldé. Ah, taxaw naan man Ama man sëriñu Ama Baldé Ama Baldé dina soog Ama Baldé du ñu feeñ. mais kii dafa ñëw di feeñ di bëggu nit ñi gis ko kaaw maa ñëw comprendre nga pour mu leen di dóor. <laughs> waaw ñu ngi ci. ah yéen tëgg rek tamit dañoo ñëw tëgg ñaari journée. waaw yaa ngi may dégg gis ce waaw léegi nag dafa xam nga ñun dañu duggee si benn affaire gars yi dañuy xëcc bàyyi mais Alain mu ngi ñëw man ma non maa ngi ñëwaat man maa ngi ñëw. Ah, non maa ah, ngi ñëw. man maa ngi ñëw. man personne maa ngi ñëw. ah gars yi namu nañ billaahi wallaahi maa ngi ñëw. billaahi maa ngi ñëw maa maa ngi ñëw parce que damaa ñëwaat tey bëgg taxawaat sama suma frère moo ci tëgg combat ama bi Ibrahima Diop ñëpp xam nañ ni suma nit la tu tuddeew ma woon fii drapeau muy ñu defandoo lépp fii Pikine ah, dama non moo tëgg combat kii bi Gris Bordeaux Ama Baldé bi Ibrahima Diop Kajoor production promoteur yow laajte damaa xamul moo tëgg Mama Garga ah. Demba. damaa waaw bañ a xam. sa sa lonkoo la sa xarit la. <laughs> bàyyi loolu de. <laughs> waaw bul wax loolu. waaw mu ngi mu ngi bëgg rey promoteur yi. mu ngi leen di bëgg rey de. fii fii ku wéeruwul dama lay wax rek ku wéeruwul ci Gaston. boo bëggee dem. wéeruwoo ci Assane Yaay. borom expérience yooyu. wéeruwoo ci Fallou. wala Pape Abdou. si si si pax nga jëm de man de ñoom laay xool ah. si ñoom laay copie kon kon gan dañ ko doon a rey non dañ dañ lay rey dañ lay dóor pièce yëpp maan maa koy won kenn du ñu dóor ñun est-ce que ko ba muy non kenn du ko dóor ah. parce que bu ñuy dugg dañ see waxtaan de barke yonent bi bañ am pakaay laa ilaaha illallaah lu ëpp <laughs> xam nga kii lu mu tudd sax du kaña de mooy yooyu di lekk ginaar yi nu mu tudd ku wax <laughs> yow xam nga loolu sax Paul. te Paul boo ñëwee si CNG bii naan doo xamoo nu muy demee yor sa xaalis ci pot ngay mujjee potu tamaate yalwaani. <laughs> Pape maa ngi lay de te man xam naa ni moomay maa koy def roi des arènes. Ah wallahi yal na waaw di la nuyu tamit di nuyu tey di ñaanal mbëru Pikine yëpp. waaw yàlla yàlla may ko wër di di gis nag taxawaayu euh, père Mouhamed Ali Ndiaye xam nga lim ci def ak Eumeu Sène ci feebaram bi xam nga ak euh, Alain tamit wax dëgg yàlla yëkkati na xaalis bu bëri jox ma waaw mooy nuyu tamit suma rakk boobu mu fa nekkal muy lobaat xam nga sama yaay tamit sonn na ci trop turandoo moom mention spéciale Cheikh Lobaat Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bu baax ñu ñuy seetaan xam nga nuyu maas xam nga suñu site yi nga xamante ne tey yéenay boosu dëkk bi xam nga <laughs> rey rey ngeen ñëpp fu mu toll nii. waaw loolu maa la ko wax waaw. waaw du wax père tamit père Gaston père. père jàppale sama site yi ñu ñëw ñu ngi si épon presse yi xam nga ñu ngi si si mbër yi di jëli say mbër may xam nga woo leen ñoom ñëpp xam nga ñoom am nañu président nga woo leen ngeen waxtaan xam nga tamit xam nga affaire yi jaar yoon mu jeex. maa ngi muy déedéet déedéet waaw mais tamit lépp loo gis rek waxtaan la parce que tamit yéen tamit boo leen ci nekkul mbër yi ak ah, xam nga événement yi te yéen ñii suñu événement yi am nii yéen a ko jaay. waaw mais day jàll. moom day jàll mais tamit xam nga yéen ñëpp a bokk liggéey bi daal li ma si mën a wax. Uh-huh. yéen ñëpp a bokk liggéey bi xam nga may tamit may masaw ki doon bëre euh, ki booy bi ñu arrêté woon ci combat Jacob bi dañ koo mujjee defeere dégg naa bàyyi nañ ko sànq rek maa ngi si woo waaw waaw petit maa ngi koy ñaanal xam nga di xam nga di wax tamit xam nga yàlla na fi coow li yem diggante papa ak ama ay frère lañu comprendre nga ndey suñu jigéen la ñu ngi ñaan daal lépp li ci amoon daal yàlla nañ ko yàlla na ci ndox bu sedd tegu jërëjëf jërëjëf ayca jërë ngeen jëf maa ngi leen di jaajëfal di leen kontaane di leen ñaanal jàmm di jaajëfal diaspora bi di jaajëfal sama caméraman ak ki nga xamante ne mooy Badou yàlla yàlla wéral seen i cër ah di jox dig daje si beneen daanaan beneen champion pël bu rafet la maa ngi nii <laughs>